poste yi ma fi lim sànq nga xam ni loolu dong laa def ci fukki at ak ñaar yi nii amul ci benn poste boo xam ni dinañ la jox alalu askan bi ba nga koy mën a jël alalu askan bi ñi koy yor dañ koy xam poste yi ma lim nii yooyu yëpp doo jote alalu askan bi ba mën cee jël waaye nag boo jiitoo dangay nangu waaye ñu xam ni que metti woon na ci ñun metti woon na ci suñuy àndandoo metti woon na ci suñu njaboot metti na suñuy surtout bu la yalla nous nga am wayju bu melni man man sama dafa bâtir réputation ci réew avant ñu xam mu samp am taxaway ci diiné di wax di jàngale di di conférence di wax sénégalais yi yar leen seen doom ci njub yar leen ñu xëy jël taawam ni ko jël na vingt neuf man ni ma ko dunde metti na mais moom ni mu ko dunde metti na mais yàlla moo wax ci alxuraan wal asr innal insaana la fi xusr yàlla giñ na ci waxtu ni ko doomu aadama lépp lu mu def doomu aadama nag dégg leen aadama ba ci man mii ba ci yéen ñii yàlla même yonent yàlla moo wax wal asri innal insaana la fi xuus doomu aadama bépp nag yonenteeg sëriñam ñëpp ci biir lépp lu mu def perte na ko illa lazina amanu wa amilu saalihaat ba mu des ñi gëm tey julli watawaasaw bil xaq watawaasaw bi sabr nekk ci dëgg waaye ànd ak muñ yàlla moo wax loolu donc ñu ngi sant yàlla li ma leen wax sànq mooy li ma laaj rapport boobu am na mooy premier rapport man bokk Mame ñaam bi ma gis waaye comme que nee nga ñun ñëpp ñoo ko gisandoo du loo xam ne mën naa cee wax mais sama àqulaay taala damay wax ni ko am na janvier 2024 bii nii la génn mat na ñetti weer xaw ma sax lu tax ñu nekk ba tey ñu ciy wax ginnaaw rapport boobu noonu pré rapport am na laaj nañ ma ci tontu naa doonte am na ñu jàpp ni que liñ ma laaj sax waruñu ma ko woon laaj waaye ngir njekk ak teraanga ak wormaal ñama laaj damay tontu donc ñu ngi sant yàlla bu baax a baax la ma waxoon démb mooy li ma wax tey moom laay wax wax naa fonction yi ma occupé képp ku gis këyit waxatuma sax rapport boo xam ni bind nañ ci Mame mbay jël na tarfatal ay ni nee naa la bu ñu ma woo nañ ko publier man maay yóbbu sama bopp donc ñu ngi sant yàlla kon jàppal ne que comme que yaa ngi ma gis nii ma taxaw mm-hmm. et que man rapport boobu ngay wax aw ma trois wax ci mais am naa ko am naa ñaar yëpp bu ma ci gisoon kon tey bu ma ci gisoon luñ ma ciy jiiñ wala luñ ma taxaw kon du ma taxaw fii yóbbu naa sama bopp bu yàgg ci nasaraan nga ne reddition des comptes non dama ni euh, dégg naa président bi wax ko euh, la reddition des comptes a pour plier les organes de contrôle les corps de contrôle IGE Cour des comptes wax na loolu mooy organe de contrôle et reddition des comptes ci seeni rapport lay rapport. donc ñu ngi sant yàlla mais daal sama waxu démb mooy sama waxu tey ci incha allahu rabbi mooy doon sama waxu suba politiquement sa carrière waaw politiquement man gis nga ni que yow yaa ngi ma bëgg a wax loo si gis nga ni que tey du waxu politique nee naa la réew mi dafa am période politique am période liggéey dal dafa soxla ci réew mi waaye nag euh, boo man ci juróom benn weer ci ginnaaw man nee naa ki